nekk ni ñu suñu jigéen ñu baax yi chef de quartier ñu ñëpp ci quartier de lañu lañ lañ donc mouvement le ñun ñëpp vraiment on a ñun ñëpp on était dans ñun ñëpp si si benn xalaat de la ñu Yalla yàlla xam na ko ñun ñëpp suñu bopp lenn mo ci amoon xam lan lañuy ñuy indil yi ci gox ñun ñëpp loolu mo doon suñu suñu mbébét donc euh, alhamdulilah tay tay jëm nañu def di ñaan at yi ñëw yalla dimbali ñu ñu gëna mëna def lu ko lu ko bon li nak première la rek mais yaakar nañu ni at yi ñëw dinañu mëna gëna topato xalé yi parce que maa ngi ko doon wax sank ma ngi naan France dañu créer les restaurants du cœur ñun fi mën nañu créer les librairies du cœur et je parlerai surtout de la librairie du cœur concernant HLM gox bi ñu def parce que li ma parce que ñun suñu xalaat mo doon fu nit am kaye su école di waaj ubbi mu nekk kaye nekk bic lu mu mënti nekk nekk fourniture même boo ko indee en nature mën nañ ko denc ba de sorte que waa diaspora bi ñëpp bu ñu participer mën nañ am fourniture yu bari ba nga xam ni parents d'élèves yi dootuñu sot parce que tey booy xool dañu jël kër bu nekk jël fa benn élève bés bu yàlla defee ba nga xam ni que euh, am nañu moyens yu gën a bari mën nañu def ba xale ba kër bu nekk ñu jël au moins cinq élèves yoo xam ne dinañ leen mën a gérer seen seen fourniture euh, euh, at bon à peu près il y a 150 kits il y a 150 kits sinon sinon dépassé na ko parce que vous savez euh, par comme ni ma ko waxee sunu sama sama jigéen bi booy def doo compter sooy def lu baax doo doo compter donc on a def nañu le maximum pour pour pour indi le maximum en tout cas li ma la mën wax mooy Cité Port kër bu nekk am na kit bu fa dëkk

ku ma soxla woowa wóolu ma vraiment ma liggéey ak yow te li ma lay wax ni ñu bari xam nañ ñu bari xam nañ ko man je m'étais mis à la disposition de la de de l'institution pour mën a jàppale nit ñi donc buñ ma wooyee ma ñëw mais en attendant ñu may woo damay recoller ak sama base recoller ak population yi et puis liggéey ak ñoom parce que loolu parce que defe naa loolu tamit lu am solo la daal. waaw ah, voilà donc euh, idée bi concept bi moo doon dañuy woo xale yi xale buy ñëw ànd ak yaayam bu ñu bu xale yi ñëwee buñ leen euh, euh, remise buñ leen di jox seen seen ay kit ñu ñaaxaale leen ñaax leen pour que ñu gën a farlu si seen ay jàng pour que ñu gën a góorgóorlu ba nga xam ni ëllëg yoon bi nga xam ni seen mag yi xàlloon nañ ko ñoom ñu mën ko topp ba pare moytoon di lépp loo xam ne daf leen di lor si gox bi parce que nag neexul ba neex dañu nekk si benn gox boo xam ne am na ay influence yoo xam ne baaxul si xale yi te ñun suñu responsabilité la ñun euh, mag yi nga xam ni yàlla suturaal nañu ñu jéem a aar sunu sunu sunu ay rak aar sunu ay doom